Omar Sarr ñu ngi lay nuyu di la dalal ci réew mi. ñu ngi lay ziar bu wér Elisabeth di nuyu waa réew mi FM yëpp. mouvement nitu dëgg tey ñu waxtaanee ci li nga xam ne euh, mbir mi moo ngi gën di euh, bëri euh, maanaam laaj geeg ñaxtu gi ñu criminaliser loi bi jëm ci LGBT yi loo jàpp ne moo waral sentiment bi tey muy gën di yokk. waaw sentiment bi lu tax muy gën a yokk mooy peuple sénégalais bi dañoo dem ba ñoom ñëpp ñu comprendre ni. Euh, affaire góor jigéen benn diine fii bugg ko fi Sénégal am na sax ñu. amul diine ñu leen di woowee peut-être bois sacré ñoom bëgguñu ko. Mhm. te ñu gis ni Nations Unies dafa bëgg a ñëw imposer ñu lool noonu fii suñu réew parce que peut-être ñoom dañ ko tuddee nouvel ordre mondial wala peut-être ñoom loolu dafa ànd seen culture ñu bëgguñu ko imposer. Mhm. ci la population bi yëpp jóg ni nag yéen nguur gi yéen li ngeen war a doxal mooy ñun ñu bëgg ñun population bi alors que affaire goor jigéen ñun population bi bëgguñu ko suñu ay diine bëgguñu ko suñu ay aada bëgguñu ko loolu moo waral sénégalais yëpp jóg tey jël combat bi def ko seen combat personnel. pour taxaw pour xeex pour euh, agenda bi nga xam ni moom la nit ñi di doxal pour pour pour légaliser góor jigéen pour mu bañ a jàll fii ci Sénégal. yéen lu leen jaaxal et pourtant Sénégal euh, am na fi benn loi bi nga xam ne euh, mën nañoo ne sax article trois cent dix neuf lu ko maanaam dàq na ko sax daan na ko. waaw loolu ay naxaate la parce que Macky Sall loolu si lay naxee euh, si lay naxee population bi surtout ñi nga xam ni ils n'ont pas comprendre ñu bu baax parce que da leen di wax ni article trois cent dix neuf day condamner homosexualité alors que Macky Sall bi wax lool xam na ni c'est faux parce que moom Macky Sall moom ci boppa moo yónni woon Ismaïla Madior Fall y a même pas six mois si assemblée générale des nations unies Ismaïla Madior bi mu demee li mu wax dama la koy répéter condamné wuñu mbiru góor jigéen li ñuy condamné mooy acte contre nature acte contre nature mooy kuy def xëy na loo xam ni euh, yenuwul maanaa wala xel wala xel nanguwu ko mm-hmm. mu ni loolu la ñuy condamné mais du mbiru góor jigéen moom il a dit carrément du mbiru góor jigéen mm-hmm. ba pare mu ni Sénégal soo fa demee amul benn nit boo xam ni tëj nañ la ci kaso bi ci ay mbiru góor jigéen mm-hmm. te kooku Macky Sall moo ko yónni nday Sali Diop Dieng c'est la même chose bi mu fa dem bi mu demee fële ci euh, euh, une organisation qui lutte pour pour euh, les violences faites au femmes dafa wax ni ñun Sénégal condamné woon góor jigéen ba pare ànd sàmm jikko yi ñoom loi ba ñu dugal sax ñun dañ ko rejeter. Mmh. juste parce que ñoom dañuy dem di rendre compte seen ay patron donc ci argumentation yooyu la Macky Sall di defee diw discours su ñëwee fii Sénégal day wax loolu te moom ci boppam Macky Sall demoon na si benn télé en France bu i iTélé mu ne ñun suñu dëkk am nañ ay góor jigéen te ñiy défendre góor jigéen yi am nañ liberté défendre góor jigéen yi parce que état bi du ñu am ak ñoom problème mmh. beneen bi si gën a grave mooy Macky bi wax loolu moom ci boppam jël na ay récépissé jox ko ay ay groupement yoo xam ni dañuy défendre ay góor jigéen jox leen récépissé di leen jox ay subvention ci xaalisu Sénégal kon loo kooku mënatul taxaw ni góor jigéen kenn daganalu ko fi. mais tey loo foog ne ban intérêt la état am di jouer ci la euh, ci yooyu les euh, moo di wax ci benn loi bi nga xam ne euh, nee nga dépassé nañ ko ba pare. waaw parce que état xam nga day wut ay argument su defee peut-être benn tooxi doona ca àll ba après day ñëw argument yu muy naxee population bi di leen wax lu dul dëgg te loolu mooy malheureusement li nekk parce que xam nga dañuy wax ni ci article quatre-vingt-dix-huit constitution ñu ni les les traités et les et les conventions signées sont ou sont des lois supranationales maanaam suñu demee ci biti ba signé fa dara ak tubaab yi su boobaa ñoom dañuy dañuy loolu euh, traité yooyu noonu dañuy ñëw nekk ci kaw suñu loi yi Hmm. tu vois te ñoom dañoo dem signé ji loolu ca àll ba. Hmm. Euh, ci ay protocole ci ay convention ci ay traité yu nekk. léegi nag comme moom signé na lool lool ñëw na nekk na suñu kaw loi te moom ñemewul jàkkaarloog askan bi pour wax leen. Hmm. réellement li dëgg bi moo tax da leen di lëre da leen di wax lu da leen di wax lu dul dëgg. mais nag population bi ñu demee ba xam ni nii lii leen Macky Sall di wax du dëgg article trois cent dix neuf condamné wul homosexualité te avocat boo dem waxal tey amul benn. benn argumentation juridique bu mu la mën a indil ni la lii ci la loi bi di condamner homosexualité moo tax ñu xam ne lii du dëgg beneen bi mooy Sidiki Kaba dafa dëggal wax boobu parce que le vingt cinq décembre deux mille quinze mhm. bi ñu libéré onze onze góor jigéen yañ jàppoon ca Kaolack ci veyu maw mawlud Sidiki Kaba boobu moo nekkoon ministre de la justice dafa génn mu ni ci bëtu ci bëtu loi bi au yeux de la loi amul góor Sénégal amul góor jigéen ça signifie que Sénégal considéré wul ni kii góor jigéen la wala léeg nit la considéré donc ñun bu ñu demee ba comprendre loolu si lañu xool xam ni amul fenn fu sénégalais di condamné góor jigéen parce que acte contre nature avant 1990 dañu jàppoon ni góor jigéen acte contre nature la mais 1990 bi mu ñëwee waa Nations Unies dañu jël ñu ni góor jigéen léegi génn nañ ko ci xeetu feebar yi. Hmm. ñu ni léegi góor jigéen nekkatul feebar. orientation sexuelle la maanaam. nit ki mooy xoolal boppam kan la mën a lëkkalool ci wàllu sëy ka ngay góor wala ngay jigéen wala ngay mala wala ngay nit ku génn àdduna wala ngay loo mën a doon am nga droit choisir ko te loolu du feebar te doo ci am benn problème. Hmm. à partir de kon 1990 boobu la ñu génne góor jigéen si acte coordonné kon à partir de boobu la góor jigéen yi légal fii ci Sénégal. Hmm. léegi leneen li koy valider mooy fii ci Sénégal euh, Macky Sall dafa créer ministère bu mu tuddee ministère du genre le genre mooy. ki nga xam ni euh, da lay bàyyi nga choisir li nga bëgg a doon parce que bu njëkk dañ doon wax homme et femme wala enfant léegi dañuy wax genre parce que ginnaaw euh, euh, parce que à part homme ak femme ak enfant na leneen ak leneen lu nekk si ginnaaw te kon il faut loolu ñu wutal ko tur nu dul famille moo tax ñu ñu dugal ko tuddee ko genre te loolu makisal Sall moo ko fi créer teg fa Ndeye Saly Diop mu nekk ministre bi léegi ñoom ministre boobu Ndeye Saly Diop Dieng ak équipe am dañu defar benn document bu ñu tuddee ISNEC stratégie nationale pour l'équité et l'égalité des genres loolu mooy ñu ni dañoom ñoom dañuy teg ay stratégie yoo xam ni dañu koy dugal ci askan bi du ko jàllale mën nañ ko jàllale ci ay théâtre wala ci ay film wala ci ay waxtaan wala ci ay sensibilisation wala ci ay image ba nit ñi ba sénégalais yi mën nangu mën a accepter góor jigéen mën a gis góor jigéen te doo ko beddi. mën a gis kon nga ne ñoo ngi déroulé fu mu nekk nii agenda wu euh, LGBT yi. ci agenda bi agenda bi ñu ngi koy dérouler à cent pour cent te démb ku ñëwoon ci manifestation bi am na benn maniforme bu bu dàmboo génne boo xam ni ñoom ministère bi ñoo ko génne ak waa USAID di ko jox di ko joxe ci ci école yi pour ñu jàngale xale yi xale yi mën a commencer ci ci mbir yooyu kon agenda bi mu ngi dox à cent pour cent te ñun waa ànd sàmm jikko loolu la ñu wax ñu ni agenda bi na dakk parce que du ñu nangu Sénégal ñu fiy daganal góor jigéen. nga gis ne association yi bëri na cent vingt cinq euh, au total ñu nekk ci benn kuréel benn collectif euh, di def pression bi nu mu gën a euh, nu mu gën a tare ndax jàpp nga ne ci moyen boobu rek ngeen mën a àggee ci li ngeen bëgg. waaw parce que déjà dañ ni mbooloo mooy doole beneen beneen bi tamit constitution bi dafa wax ni le peuple est souverain maanaam ñun peuple bi ñoo moom réew bi. Mm. te benn affaire soo ko moomee nag da koy doxalee te na nga ko bëggee. léegi nag comme ñun dañ fee teg ay njiit yu ñu war a doxalal ci suñu ay kàddu. Mm-hmm. te njiit yooyu nanguwuñ ñu doxalal ci ay suñu ay ay kàddu kon il faut que ñun ñu booloowaat wan leen ni leen lii ngeen def ni ngeen koy defee d'accord ñu ci te changer leen ko. changer leen ko wala ñu jëlee leen fi yóbbu leen fële sànni leen indi fi ñeneen ñoo xam ne dinañ ko doxal ci ni ñu ni ñu ko bëggee. loolu moo waral ñu woote waat beneen manifestation ñu ñëw leen ñu dajaloo suñu dajaloo ñu jàkkaarloog ñoom ba ñu xam ni ñii ñëpp taxaw ak ñi mënul ñëw ak ñi nga xam ne nii joxe nañ ngànt ñoo ñëpp dañoo booloo ni d'accord ñu ak li ngeen bëgg a légaliser góor jigéen ba pare xamal ko tubaab yi xamal tubaab yi ni leen yéen tamit arrêté leen pression bi ngeen di suñu état bi parce que suñu état bi ñoom moomuñu ñu mais ñun peuple bi ñun ñoo leen moom te ñun nanguwuñu ak ku daganal góor jigéen te jàppale na ni ngeen leen di tuddee noonu saa su nekk dina doon seen promotion. non non du doon suñ promotion parce que. ñoom ñoom seen euh, promotion. Euh, waaw non duñ def promotion góor jigéen ñi si loolu parce que yàlla suñ borom subhaanahu wa euh, lim na ci ay lim yu takkoo takkoo takku mbiru góor jigéen. Hmm. parce que loolu mooy artu maanaam olof sax day wax ni ku artuwul dinga nga yàlla artu na waaw yàlla artu góor jigéen yi ci ay lim yu bëree bëree bëri si biir alxuraan ni leen ay yàqkat ngeen ay criminel ngeen yéen da ngeen maa attaqué dañ maa da ngeen maa déclaré guerre limee leen lu bëri bëri bëri kon ñun tey daanaka ci méthodologie méthodologie bi yàlla jëloon rek moom la ñuy moom la ñuy adapté pour wax àdduna bi ni leen nañu bàyyi xel na ñu def ndànk nañu vigilant nañu teeylu ñu seetlu yéen borom kër yi na ngeen seetlu bu baax parce que góor jigéen ñi nii la ñuy doxalee nii la ñuy fexee ba nax seen doom yi ba dugal leen ci mbir yi ci école yi nii lañ ko fi bëgg a dugalee il faut que ñu répéter leen ba loolu leer nañ ci seen bopp ba nga xam ni ku ci am doom mu commencé am benn fréquentation yi commencé am yenn yenn solo yenn colko yi rek nga teel a artu teel a ne loolu parce que soo ko deful ci mbiru góor jigéen lay mujjee te su ci xasee dugg rek daanaka day mujjee doon day mujjee nax saay. mu mel ni mbir mi politique la rax na ci. waaw xam nga politiciens yi fii Sénégal ñoom ñu la bëggee euh, sànni xeer wala ñu bëgg la saaga wala bëgg ñu bëgg la wax lu bon rek dañu lay njëkk solal mbubbum politique dañu naan la yow politicien nga pour après ñu man la wax lépp lu leen neex mais ku xam ànd sàmm jikko yi xam ni ñun politique guñu parce que mosuñoo wax sénégalais yi ni leen kaa leen votel ñu si nangam mosul am ñun mosuñoo dem déposer suñu ay kayit pour ñu dañoo bëgg a bokk ci élection nangam kon kooku mënoo ko tuddee politicien mais ñun li ñuy def mooy dañuy dénoncer dañuy ñaawlu yu bëree bëri bëri yoo xam ne ñu ngi fi te suñu suñu suñu gouvernement yi di ko doxal ñun ñu koy ñu koy ñu koy dàq léegi nag ci politique de sensibilisation boobu si la ñu nekk di xamal askan bi ni leen lii la nguur gi di doxal fii te baaxul léegi nag wax bi ñuy wax ak askan bi di leen dajale di wax ñoom moo leen di déranger moo tax tey ñu bugg ñoo tuddee politicien waaye ñun loolu ñu teree continuer parce que xam nañ ñun li ñuy def lan la te xam nañ fan lañ ko weer te suñu àqulaay taalaa lañ ci àndal kon ñun duñu ñu duñu duñu seetaan ñoom ñu jéem a influencer ba bëgg a nañ ñun ci li ñu nekk déedéet dañuy continuer rek te xam nañ ni fi ñu jëm fan la kon yéen tey amu leen benn ambition politique euh, bi nga xam ne euh, bëgg ngeen dara ci législative yi ñu jëm waaw non loolu xam nga ñun ànd sàmm jikko yi daanaka mën naa ni ci ndigal yi la ñuy doxee ci mm. ndigalu xalif général yi fi nekk ci ngir ndigalu prêtre bi si ndigalu sax wa bois sacré parce que ñoom ñooy yilif Sénégal daanaka ñun ci ndigalu ñooñu la ñuy doxee te lépp lu ñuy def ñun dañ ciy waxtaan dem waxtaan si ak ñoom ba ñu d'accord si ak ñun mm. mais jusqu'à aujourd'hui may wax ak yow loolu waxuñu si ci li ñuy wax mooy ci wàllu loi bi kese la ñuy wax waxuñu si leneen léegi nag loolu euh, parce que lu tax nit ñoom ñu koy ruumanaat parce que élection locale yi bi mu fi ñëwee ñun dañoo jàkkaarloog sénégalais yi ni leen nguur gii fi nekk dañu leen a wax voté leen suñu loi bi ñu bañ kon bépp bépp liste Benno Bokk Yaakaar bu nekk fii ci Sénégal na ngeen leen boycotté bu ko kenn voteel parce que ñoom nanguwuñu defal ñu li ñu bëgg ñun peuple sénégalais bi te loolu dafa saf sàpp si ñoom ci élection locale yi te ñoom ñu xam ne élection législative yi ñu ngi ñëw te loolu mooy député yi ñu bëgg a jéem a damm suñuy laaf moo tax ñu bëgg a jaarale foofu mais ñun duñu gëstu duñu leen bàyyi xel xam nañ suñu objectif lan la mooy défendre population bi mooy défendre valeur bi valeur yi te dinañ ci continuer bis bu ñu demee nag ba war a waxtaanee loolu su boobaa kilifa yi dinañ ci waxtaanee dinañ ko waxtaanee te lépp bépp ndogal bu ñu ci jël rek ñun surtout ndaw yi dinañ ci ànd ak ñoom te xam ne lii ñu jël dañ ko jël pour euh, pour intérêt réew bi pour intérêt diine ji pour intérêt valeur yi. kon doonagul lu ñu mbébét. ah. doonagul lu ñu mbébét. non non waxtaanee guñ ko te pour la moment ñun ci avancé pour le ñu ngi resté suñu objectif. pour fexe ñu criminaliser góor jigéen fii ci Sénégal. d'accord Oumar Sarr euh, nitu dëgg ñu lay jaajëfal bu baax a baax. ñu ngi lay jaajëfal Elisabeth di jaajëfal équipe bu réew mi FM yëpp di kontaan kontaan bu baax ci seen liggéey. merci beaucoup.